salaamaaleykum mbokku internautes yi ñuy seetaan ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax ñu ngi ànd ak seen télévision avenir comme ni ngeen ko xamee ñu ngi nii tey di si bésu élection yi euh, élection locale yi ñu ngi fii ci école bi ñuy wax Mérina de euh, ñu fekk fii ay mbooloo bu takkoo takku ñu jóg ci suba teel gi di ñëw di vote se waaye xam ngeen ne Mérina 2 buñ nee Mérina de nag wax ne euh, kàcca boo xamante ne dafa populaire Mbaye Jacques Diop fii la daan vote ci école bii nii waaye tamit dem nañ ba ay doomam wala ay rakkam. ñëw it nekk ci géewu politique bi ku si mel ni tey Xaali ngoom moom fii lay voté ku ci mel ni euh, Albert Ndoye ñoom ñëpp fi la ñuy voté allah euh, boo xoolee école Mérina de moom am na 10 bureau de vote kon xam naa dañuy daal di jàll ci biir daal di xool lan moom la ñu mën a am ci askan wi. aywa ba tey ñu ngi fii ci centre bi ñu fekk fi benn soxna si ñëw fii di voté se euh, ñu ngi lay nuyu waaw maa ngi lay fay bu baax salaamaaleykum. maa ngi lay fay bu baax euh, man mandataire la au niveau de benn Bokk Yaakaar ñëw fii si école bi mais école bi pour l'instant calme am na ñu ngi voté si jàmm ak salaam problème amul dara amul te vote baa ngi dox macha allah. gis nañ euh, nit ñi jóg nañ massivement pour ñëw. parce que nit ñi ñoo sonn moo tax ñu bëgg a jóg massivement pour voter pour euh, mettre candidat bu baax ci ville de Rufisque bi pour ñu mën a ville de Rufisque pour Rufisque mën a jëm kanam. Euh, gis nañ ne candidat yi bari nañ lool. Euh, waaye tey est-ce que tey dina yomb tey li nga xam ne benn bokk yaakaar daal fi am. waaw dina yomb trop dina yomb trop parce que nit ñi ñoo sonn bu soobee yàlla incha allah fii ak 18 bu soobee yàlla benn bokk yaakaar dina am ndam. Euh, ba tey ñu ngi si biir centre bi ñu fekk fi sunu papa Jaraaf Tanor kan euh, moom tamit ñu daal di koy laaj rek moom i nan la gisee li nga xamante ne mooy élection yi nga xamante mooy élection locale papa ñu ngi lay nuyu di la ziar. waaleykum salaam wa rahmatullah ñu ngi leen la fay. di leen ñaanal jàmm sutura teraanga gudd fan jaamu yàlla gu sunu borom nungu sunu borom defal nu ko la wax ni nu ngi am kontaan te lool si bis bi fekke ka di wax ni école marina bi école famille la ñëpp a bokk ndey ñëpp a bokk baay te élection yi jàmm rek lan se ñaan parce que kat jaboot jàmmaay mbokkam te woote dimanche altine xëy liggéey kenn amul jëgam kon ka nekk war na kaa def si boppam te njaboot gi yëpp nooña bokk jaboote man mii may jaraaf ab Tëngéej kon nag ab jaraaf li mu war a ñaan mooy jàmm ba nu fanaanee ñaan jàmm ba pare dañ kaa dëggal képp ka wate na ñibbi sa kër képp ka wate na ñibbi sa kër ki gañe gañe nu continuer dem Sénégal continuer jëm kanam loolu la noo ñaan ñëpp njaboot gi loolu la noo ña loolu ñaan ñaan parce que li waral nu di ko ñaan euh, njaboot gépp noo ñu bokk jaboote nu bokk nday bokk baay nit nag bu bokkee nit nday ak baay li ña bokk mënuñu kaa séddoo day kaa waxtaanee mu rafet te ab wate la ay carte moo la wate du xeex du xuloo baa jëlee sa carte def ni man dugal ko si urne bi pare ñibbi kenn desu fi kenn du xuloo kenn du xeex parce que seet nañu ay nit ka nekk tànn sax nit ki la war a toogal mu doy la bañ a paree ña wàññi carte yi ki gañe ñe ne ko yaa gañe ñi ña gañe ña nungu nu liggéey tëngee jëm kanam Sénégal jëm kanam lii nag ñëpp la war Sénégal gépp parce que kat ku seet ay élection ni muy defam réew si ñàkk juboo te ñàkk juboo du jëme fenn am réew te dañuy tabax réew mi réew mi tabax taxawagul kon ki la jël réew mi na ñaan yàlla ba kaa jël réew mi taxaw mais ka tojam réew bëgg kaa jël di ko defaraat xam naa ne tardé naal kon yàlla nañu yàlla musal si tojam tey bopp yàlla nañu yàlla musal si wate ba pare xëy altine mënoo liggéey eh, am man nanu see am ab seetu si dëkk yenn yi nu dendeel jour raison yi ñi amul jàmm te li waral amuñu jàmm élection rek a ko ëddi kon nag jaboot jàmmaay mbokkam yàlla nañu ko yàlla defal di wax ne alhamdulilahi rabbi alamin euh, ba tey ñu ngi ci fii ci centre Mérina 2 ñu fekk fi sunu benn papa moom it dafa mel ni Sénat la ndax bu ñu ne élection wax woote rek daal di ciy boole li nga xam ne mooy Sénat ndax ñoom defe naa ñoom ñooy contrôler li nga xamante ne mooy mbañ gaat yi kon yéen ñu ngi lay nuyu bu baax di leen di di leen di sant di ñaan yàlla mi nga xam ne moom mooy doxul mbir yëpp

loolu la ñuy ñaan. Euh, que le meilleur euh, ñu seetlu nekk ne yi bari nañ lool euh, ku si mel troisième âge bi moom mu tànn tànn tànn dafay xaw a jafe ndax dugg nañ si salle de classe pour waxtaan ak ñi nga xam ne ñu nga troisième âge yi mën lu mel cinq wala. trois dafa doon mbir moo xam ne ñun waxtaan nañ ci démb ci séminaire bi ñu def démb xam nañ ne troisième âge ñoom bu ñu ñëwee duñ def la queue dañu ñëw directement am ku leen accompagner rek ñu mën a dugg def seen euh, def seen comment dirais-je encore def seen vote en toute quiétude bu ñu fa jógee ñu dellu loolu daal moom doon na loo xam ne ñu ngi koy ñaan président des bureaux yëpp koo xam ne da nga bokk troisième âge boo ñëwee rek ñoo mun la bàyyi nga def sa vote après nga dellu sa kër. ils peuvent attendre. Quand ah, on ñu le centre bi allah euh, avant 8h sax avant 9h, fekk na mu nan nga en bi mon devoir. parce que leader politique yépp Mérina voter. dëkk fa la ñu voter. donc état inconditionnel entre guillemets mais lolu c'est bien beau mais li am solo nañ ko def dans la discipline et que le maire gagne loolu daal moom dañu souhaité ñun ñëpp ñu def lépp dans la discipline ku ci nekk jouer ce rôle mais en toute étude c'est important. c'est important ba tax na papa ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax. ñu leen di remercier aussi vraiment parce que seen taxawaay ñun rafetlu nañ ko leen di ñaanal ngeen am yokkute ca kanam ca kaw. Euh, comme ni ñu leen ko waxee rek mbokk yi ba tey ñoo ngi fii ci école Mérina 2 buñ nee nag élection dañ ciy wax jeune ndax jeunes yi tamit euh, nee naa ku fi falu ku nekk rek ñoo la fal ba tax na euh, dañ fee fekk benn jeune ñu gis ne moom teel naa yeewu tarkaala macha daal di ñëw taxaw ci rang bi di di voté ñu gis ne école bi macha allah lépp a ngi ne tekkaaral dara amu fi yow lan nga gisee loolu ak jug bi nga xamante ne population bi jug nañ ko ñëw tey di voté see gannaaw bi nga nuyoo ba pare. waaw asalaamaaleykum bon boo gisee école bi ni mu defee tekkaaral ni da ngay gis ne ñu ni neen la rek waa naa fi ne waa Thiawlène waa Colobane kon ñu ni neen rek ñoo fi daje xam nga jeunes yi nag li tax ñu jóg mooy li fi nekk moo ñu lool ndax gisuñu si benn avancement boo gisee li tax ñu ñëpp ñu jóg nag teel a yeewu pour changer li fi ne rek noonu la dem boo gisee jëpp teel a yeewu pour changer doxin bi euh, ndax tey euh, lan ngay ñaax ñi nga xamante ne dañuy voté ba pare toog di xaar. waaw ñooñu moom mooy ñi nga xamante ni dañoo am jot rek ndax euh, boo xëyee nga ne da ngay changer li fi foog naa ne boo voté rek war nga mën a ñibbi dem toog sa kër daal toog xaar résultat yi génne ñu doxal daal. ñoo ko déggandoo toog xaar euh, résultat yi génn ñu doxal. dañuy ba tey ñu ngi fii ci centre bi ñu fekk fi sunu yaay euh, Maguette xam naa ne moom ku ko gis euh, di nga xam ne yàgg na nekk ci géewu politique tey nag ñu xëy gis ko mu nekk ci rang bi yaay booy ñu ngi lay nuyu bu baax. Ah, maa ngi leen di fay seen tur seen sant di kontaan si yéen si seen teewaay ah ñu xëy na ñëw nag si école yi fii ne ñu ngi commencé si bisimilah parce que yéen a si alhamdulilah rabbil Fatou fi mu ne gis nga école Mérina yow fii mooy sa fief jàmm ak salaam rek lañ fi fekk dañuy ñaan yàlla nii ñu ko con commencé yeggalee ko noonu fi mu ne le ka que ki si yàlla ne mooy falu rek yàlla na ko yàlla fal si jàmm ak salaam loolu rek mooy samay wax tànk na man temps yëpp dama xaw a toor waaye maa ngi sant yàlla bu baax. tey ñu gis ne bulletin yi bari na tey ku xaw a mel ni ku tawat nii ak ñi nga xam ne ñooy troisième âge pour ñu tànn bulletin yi day jafe yow tey ban gis-gis nga am. man su ma sañoon comme li nga wax léegi su fekkee nga ma wax ka pare troisième âge dañu waroon am rang spécial waaye tey dañ ko bañ fii amul troisième âge bulletin yi tey maa ngi seen léegi sama bureau bi ma war a dugg bureau huit maire buy jël ñu xamul am ku dugg di ka wax ñu koy bousculer dañu waroon am ay accompagnant si mag ñi. loolu fi ne nii loolu moo manqué si élection yi amul accompagnant parce que fi ne nii li ma gis daal baaxul si mag ñi ndax mag ñi xamuñu ndax bulletin yi ay onze bulletin ay quatorze bulletin xale moo ko xam ak ku jàng di nga gis xale bu jàngul sax xamul kon waroon nañ teg accompagnant si bunt bi. aywa ba tey ñu ngi fii ci biir école bi ñu fekk fi sunu papa moom daanaka ñu ngi ko fekk ci rango troisième âge bi euh, ñu seetlu ne ci suba ba léegi jafe-jafe bi ñu fi nemmeeku mooy que ni troisième âge yi pour ñu tànn li nga xamante ne mooy bulletin yi dafa xaw a takku ndax gis nga ni ñu ngi dugg ci biir classe yi di leen guider pour ñu jël mën a tànn lu mel ne cinq wala trois bulletins. waaw man nag euh, depuis ce matin maa ngi fi ma jógee jàkk ba léegi. bon bi ñëwee rang aussi euh dañu génn ci biti quoi nañu il faut ñu xaar que dispositif ñu ñu tek ko bi ma ñëwaatee fekk na fi rang bi mais ba légui duguma xawma ce qui se passe dedans gis na dal nit ñi di dugg di génn mais pour man euh voté guma donc xawma li xew ci biir quoi ndax dañ leen di accompagner wala duñ leen accompagner wala ils ont des difficultés pour savoir li ma xam dal moy euh, rang bi euh, kii na quoi euh, yeex na yeexaay bi daal remarqué naa ko. Ah, ran bi yéex na ndax yéen waa troisième bi da ngeen di rang wala. waa troisième âge bi fii moom ñu ngi ñuy arrangé bu ñaar duggee ci rang bi ñu dugal euh, troisième age bi ñaar aussi waa ñu ñu koy ñu ngi arrangé fii moom ñu ngi arrangé bu baax. Ah, tamit lan nga xaw a nemmeeku ci école bi que ni ñun ñaa ngi ñëw nañ euh, ñu ngi voté di dem di ñibbi lan ngay ñaan j'ai pas bien entendu. ma ni lan ngay ñaax population bi nga xamantene ne nañ tay di voter bo seetloo école bi daanaka ñepp ñëw nañ euh, di voter se mais ku voter da ngay dem ñibbi. waaw waaw parce que loolu moo fi war a nekk sax parce que quand même euh, ku nekk da nga war a respecter choix choix keneen ki donc war nañu mën a voter ci jàmm ak salam quoi. Euh, ba tey ñu ngi école numéro 2 ñu fekk une suñu tonton Pape Sall euh, moom dafa mel ci organisateur possible. Euh, bi la papa ñu leen nuyu bu baax. bëggoon xam lan mooy jafe-jafe yi si biir salle de vote Wow, waaw maa ngi lay nuyu di ñaan yàlla vote bi si ak bon mais c'est la première fois Sénégal ñuy def pratique bi C'est un peu compliqué parce que à Rufisque et à Thiès on vote trois fois la commune la ville et le département.

Euh, man leena guidé que ni man nañ jël lu ci melni 3 wala 4 bulletins wala 5 bulletins que ñuy tànn lepp ndax dafay metti ndax li xalé man mag mënu wa waaw d'ailleurs code bi loolu pour ce qui est pour la commune minimum na nga jël 5 bulletins bulletin bi ngay voter nak daf ci bokku tu prends 4 ak bulletin bi ngay voter muy 5 loolu code bi wax pour que nga mëna jël bulletin yépp di gëna a ëpp coono loolu mom code bi wax na mais le problème qui se pose mooy rang bi rang bi taxaway bi ci biti lenteur bi bo amé ci biti foog rang bi taxaway bi day yag te mag ni troisième âge pour ñu taxaw taxawaay bu yàgg bi day metti té aussi ñëw né dañuy may troisième âge loolu amul ci code aussi lolu négociation la ak waxtaan ba juboo du lo xamné ne code moo ko wala dara bon mais vraiment dina compliqué dina compliqué dina compliqué et c'est la première fois Sénégal di pratique bi aussi